sama gars yi ma leen di juste fàttali rek euh, ñi nga xamante ne peut-être dañoo woon ni seen xel dalul léegi moom xam naa ni moom soulagé ngeen donc ce que veut dire leen ne te moo am sax mu nekk ni mbir mi daal jeex na Ousmane mu ngi ci biir ah kon xol yi feex na waaw loolu daal la ma leen mën a wax alhamdulilah rabbil alamin victoire boo ko doon junjee ay weer si ginnaaw di si def sama vidéo chaque instant victoire bi ñëw na kon leer na donc nag Sénégal c'est à nous de le faire lan man si sensibiliser gën a ñaax ñeneen ñi allah su ko defee suñu borom ay ñu dem àll bi nag si àll waaw comme te tëj leen université étudiants yi dañ dem côté àll bi sensibiliser jéem a xool nan la ñuy jéem a convaincre ak jour élection yi ñu jéem a saytu dara fenn du seen. jërë ngeen jëf Ousmane Sonko taw fee ak xewal ak sutura biyantoo lay mu génn incha allah